ab délégation bu institut Souleymani tukkee ko ca Turquie amaloon nañu ab tukki nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba loole nag dugal ko ci lëkkaloo bi nga xam ne moom moo dox ci seen diggante ak xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir Mbacké ak it institution islamique bi nu mel nekk foofule ca Turquie mu doonoon nag as porox ndollu ci délégation bi ñu amal tegu xeer bu njëkk ci ab daara bi nga xam ne ñu ngi ko nama amal ci dëkk bu sell bi di Touba. chef de délégation bi daal di dellusiwaat ci mission bi nga xam ne moom la ñu gàll ci seenub ndodd. we are the organisation known as Souleymania throughout the world has none other than purpose anywhere mooy lépp loo xamante ne day yaatal diine. Euh, di ko di fexe di ko jàngale euh, ci ci ci ci bépp boo xamante ne nit ñi ñu ngi yittewoo lu mel noonu lenn rek mooy seenu mooy seenub yitte ak seenu seenub jublu mooy yeesal islam yaatal ko jàngal nit ñi it euh, asa saabatu rasulullah yi nga xamante ne ñoo àndoon ak ñoom ak sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu mooy seenub yitte allah taala alayhim ajmain ab daara buy wuyoo ci doxalinu dëkk bu sell bile di Touba te it muy njàngale moo xam ni dana ko tëral ci valeur islamique. li ñu fas yéene liggéey fii it gaaral nañ ko sëñ Yuusu sëñ Yuusu gaaral ko sëñ bi ba sëñ bi rafetlu ko ñoo ñoo sëñ Muntaxa it mandarga nañ ci këyit bind ci loo xam ni li ñu fi def lenn lu ciy génn doxinu Touba du ci am nañ nañ sàmmanteeg war mooy dëkk bi sàmmanteeg doxinu dëkk bi sàmmanteeg jubluwaayu dëkk bi ci jàngale ak yar. ndax ab dëkk moom euh, waaye loolu li ci neex mooy directeur bi bi mu ñëwee dañuy bi mu jëlee kàddu ci kanam siñ bi dafa ne ñun ñëwuñu pour jàngal leen waaye dañoo ñëw pour gunge leen waaye sax dañoo ñëw pour jàngale ndax euh, dégg nañ Touba xam nañ ni Touba di def ci àddina bi xam nañ li Touba defar ci àddina bi xam ne ni Touba di liggéey ci àdduna bi kon ñun dañoo ñëw pour gunge leen waaye jàngaare. Serigne Youssou Diop di responsable moralu Hizbut Tarqiyyah moom moo dalal délégation bi nu mel ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Youssou di rafet lu taxawaay bi. jàppalante la ngir lu yaatal xam-xam ak lu tax lislaam gën a am doole ñu leen di sant nag bu baax ma ñëw fii ci quartier Hizbut Tarqiyyah ñu am fii barab boo xamante ne euh, li tax ñu wut ko day barab boo xam ne li ñëpp bokk rek lañ fi mën a def ndax du kër. Euh, muy barab bu yaatu boo xam ne fow ñu def fi loo xam ne ñëpp koy bokk ni ñu defee fii ci wetam foo xam ne hôpital lañ fa def kon fii ñu war fee def loo xam ne mboolem ku fi dëkkee wala nga doon su dëkkandoo di ko mën a jëriñoo loolu daal moom lañ doon teg si tey ji xeer wi. gox bi la di Hizbut Tarqiyyah di bërëb bi nga xam ne moom la ñu tànn ngir amal fa daara ji nu mel école coranique bi nag dina participer ci njàngaleem valeur islamique nga xam ne dëkk bu sell bi di Touba moom la ñuy doxee saa su ne. ci fàttali rek délégation bu tàkku bi nu mel kii di xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir Mbacké daldi na leen di dalal ak i tamit yëkkati ay ñaan yu am solo di leen ko jagleel.